alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu kii day mun xam naa ñes lañ koy wax président Ansaaru Diin national. te sang bi mënuñ xam lan mooy sababu jotaay tey bi ngeen amal ak xalifa Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass. waaw xam nga xalifa bi moom naka jekk euh, comme ni ngeen ko xamee fan yi ci gannaaw am xalifa boo xam ne moo fi nekkoon euh, jiite ñu jiite mbooloo mi euh, ñu nekkoon ci gannaawam di liggéey ci ay programme ak ay tëralin yàlla ci sañ-sañam mu jëlee ko fi bi ko fi jëlee yi tamit am xalifa bu bees bu ñëw loolu waraloon ñu war a ñëw ci moom jaayanteeg moom te loolu dafa am cosaan ci diine ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnee àddina ki ko utu nit ñi dañoo ñëw jaayante ak moom joxante ak moom loxo wan ko ne ko ñu ngi jël engagement exactement yi nga xam ne moom lañ jëloon nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ñuy digal di ñu tere ñu nangu ko loolu mooy continuer ba moo mujj indi xilaafa bi xalifa bu bees amee nag ñun tamit war nañoo ñëw beesal suñu engagement waaye mu tombeeg ñuy waajal gàmm mu tamit ñu doon préparer benn programme boo xam ne ci ñetti at la war a diire maanaam ñetti at yi di ñëw lan la Ansar Dine war a liggéey parce que loolu tamit lu ñuy programmer la ci wàllu bu nekk nag wàllu infrastructure wallu environnement wàllu culture wàllu nangam lu ci nekk ñu def ko ci benn benn benn téere benn document tënk ko boolee seyaale nag euh, waxtaanaale mbiram gàmmu gi naka la naka la ñu war a tëddee euh, waxaat nit ñi ne leen Ansaru Din lépp lu mu daan def ci gàmmu gi ci taxawaay ci financement ci organisation ci lépp mobiliser at nit ñi pour ñu def ko biñ defee loolu ba pare nag léegi nag war a ñëw nag ci sëriñ bi jébbal ko téere boobu wax ko information yi nga xam ne moom lañ am ak li nga xam ne moom lañ doon moom lañ doon doxal loolu daal ci gàttal mooy li nga xam ne moo ñu moo ñu moo ñu yëkkati woon ñëw beesal suñu engagement parce que Baye mi ngi présenté woon ansaaru diin ne mi ngi jugee ci man ansaari ilallah yonent yàlla Isaa bi ko yàlla yónnee dafa génn taxaw ci penc mi ne kan ci yéen mooy jël engagement gëm sama projet bi pour ñëw jàppale ma ci ànd ak man exactement comme ni nga xamee ne nii tey réew mi président la ñuy fal mais président buñ ko salee auto buñ ko falee automatiquement dafay soxla équipe soxla programme rëdd fi ñu jëm ak nuñ koy amee bu ko defee loolu tamit nag ci la jël am saanu diin war a taxaw ci wetu xalifa bi loolu ci gàttal mooy li ñu fi indi tey. mën nañu am une idée si grande ligne yi nga xam ne tënk ngeen ko jébal ko xalifa waaw grande ligne yi li ma la wax la rek mooy euh, tënk dañ benn programme boo xam ne nii fii ak ñetti at la. waaw euh, dem na ci wàllu environnement. lépp lu jëm ci wàllu jëmbat ay garabak ak ak environnement ak lim lim ëmb yëpp mais programme bi gën a teew mooy commencé nag participer ci jëmbat ay garab partout ci département yi Sénégal ñi ngi am programme bo éco wàllu économie ñi ngi dajale ay projet daayira bu nekk war na joxe euh, bu war na joxe benn projet département bu nekk war na joxe benn projet niveau national war nañ joxe projet projet yooyu dañ koy financer bu ko defee pour nit ñi tamit am ci loo xam dañ ci xëy muy dimbale taalibe yi waaye ñoom ñi koy liggéey tamit mën a am ci lu ñu xëy ba mën a continuer di liggéey liggéey bi ñuy liggéey Euh, ñi ngi préparé ay don de sang euh, joxe nañ ndigal pour département yëpp def ko ñi ngi préparer ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne kenn mënu koo tënk fii waaye daal jàppal ne lépp loo xam ne association dana ci yëngatu rek ci ak addina bi lim soxla tey tey tey tey ñu ngi ko def ci programme boo xam ne xaj na su ngeen ko soxlaa dinañ ko mën a am ñu ci tënk jox leen ko pour ngeen mën koo xam. exactement sans compter Covid 19 lan la Médina Baye pare dafal gàmmu édition 2020 bi tax dina am coppite waaw loolu nag li ma ci man a wax mooy euh, wax nañ ceeg sëriñ bi am na décision bu mu jël waaye daf ne nañ ko wax ak porte-parole am moo ko war a annoncé donc man du ma mën a sañ déballer ko fii damay bàyyi porte-parole bi moom dina ko dina ko def bu soobee yàlla. sëñ bi peut-être euh, si biir salle bi wax na ne tamit lépp luy nomination wala poste yu nekkoon ci waaw waxut ansaaru diin rek moom dafa wax ne maanaam lépp loo xam ne sëñ Cheikh. xalifa bi passé tegoon na ko fi képp kum amoon ci moom confiance moom it am na ci yow confiance parce que loolu mbiram dëkk bi la mbiram état la maanaam ci misaal daf continuité la kum amoon ci yow confiance am na moom jox na la confiance bi kum santoon liggéey bàyyi na la ci sa liggéey yow mu des nag yow sa engagement nga jël ko pour liggéey moom dafay ñëw pour jàppale la ci sa engagement boobu ak sa liggéey boobu pour nga continuer. kii Cheikh al Islam ak euh, li nga xamante ni moom mooy conférence internationale euh, jëm ci wàllum euh, jàmm ndax loolu tamit nekk na naal yoo xam ne a defaraat. waaw kay exactement yaa ngi may fàttali sax parce que loolu bokk na ci li gën am solo ndax loolu ñu ngi ko waroon def ci deux mille vingt bi. mais xam nga contexte bi ak bii moo ko indi mais loolu incha allahu ñu ngi jàpp ne deux mille vingt et moom bu ñu yàlla mayee jàmm il faut dinañ ko taxawal parce que dégg nga ni ko sëriñ bi waxee léegi bu fekkee ne toog nañ ba heure bii am journaliste boo xam ne ñi ngi wax journaliste mais du rek journaliste mais nekkoon na ministre pendant lu ma ëpp juróomi at wala juróom benni at ci ci ci ci gouvernement Égypte moom moo ko oo di ko wax ne ko seen conférence internationale boobu ngeen defoon ci turu jamatu ansaaru din ba léegi maa ngi koy fàttaliku waaye maa ngi fàttaliku baat yi nga xam ne moom nga waxoon ne leen ne américains yi ak tubaab yi yëpp denc leen seen armu yi bu ko defee jàmm am ci àddina bi kon mu ne mu di ko ko fàttali loolu ci la ñuy taxaw ak prix cheikh al islam pour pour bi nga xam ne pour pour euh, pour jàmm la te joxoon ko 2015 euh, euh, président Macky mu jël alal ju bëri dimbalee ko euh, conférence bi ba mu réussir mais ñu tuddee woon koy tamit Mohamed VI buuru Maroc loolu nag fi mu ne nii ci lañ ñu war a xalaat ba euh, xam bii di ñëw ñan lañ ko kan lañ ko war a jox ak euh, kañ lay doon ak yooyu buñ ci àggee yéen ñëpp di ngeen ko xamandoo. ok boo sortee de l'audience maintenant lan mooy message fort u Ansaarud Din lan mooy seen message fort. message Ansaarud Din mooy. taalibe yëpp mobiliser waat nekk benn bopp ànd xam ne Ansaarud-Din di Baye moo ko tëral moo ko fi teg euh, te ndigalu Baye addina bi yëpp ci organisation ci booloo ci àndee ci ànd ci lay ci lay ci lay taxawee mais taalibe Baye tamit suñ àndee dajaloo takkoo ànd maa ngi koy wax maa ngi leen koy wax yen journalistes yi ak mboolem ñiy liggéey ci wàllu wàllu wàllu wàllu xibaar ak média neleen war ngeen a dajaloo recenser mboolem ñi nga xam ne ñoo ci ñoo nekk ci ci wàllu googu defal defar seen seen tëralin wan ne fii lañ bugg a dem fii lañ bugg a jaar moyens yii lañ soxla bu ko defee ngeen indil ñu ko ñun ñu bokk ko ak yéen liggéey ko léegi yëpp jëm ci organiser pays bi parce que luñ organiser wul du dem kër sax. kër benn kër rek soo ko abee soo organiser wu dépense bi organiser courant bi organiser kër gi ni muy tëddee ak ku nekk li moom ak lim moomut kër gi dafay tas rawatina nag taalibe yu tol nii ay millions yi millions yi millions il faut mu am yàgg ngeen a dégg Cheikh Ahmed Tidiane xalifa bi bi passé lu jiitu muy nekk xalifa daf daan wax ne taalibe bàyyi mel nañ lu nekk am nañ lu nekk nekk nañ fu ne waaye li leen manqué mooy buum gu leen di takkee hmm. loolu moo taxoon moom bi mu ñëwee rek mu ne kon buum googu di leen takkee nag du dara lu muy ansa jamiyatu ansaaru diin moo tax nag ansaaru diin boobu ci lañ taxaw nag pour gën koo redynamiser yéen yéen journalistes yi yéen économistes yi yéen ñëpp ku ci nekk ci sa domaine yaa war wax lan la ñu war a def par rapport ak domaine boobu pour mu jëriñ pays bi pour ñëpp gis ci seen bopp. application et investissement de la Jamiatou Ansaroudine niveau national. Euh, Monsieur Samb, vous avez été reçu par la Khalif de Medina Baye, Cheikh Mohamed Maï Ibrahim Niass. Au sortir de cette alliance, qu'est-ce qu'on peut retenir Nous avons été reçus à l'issue euh, de notre séance de travail d'une des réunions statutaires de la Jamiatou Ansaroudine, la réunion du bureau qui était présidée par euh, euh, Cheikh Mohamed euh, Mounhamina Ibrahim Nias, président national, et en présence des délégués venant de tous les départements du Sénégal. Euh, l'objet de la euh, de la de l'audience était de rendre compte au calife des résultats de nos travaux et de lui euh, confirmer notre allégeance et de solliciter son soutien pour la réalisation du programme triennal d'action et d'investissement. Et quelles sont les grandes lignes de Cinq axes. Il y a un axe mobilisation, c'est l'axe fondateur, puisque, comme vient de le dire le président en langue Wolof, euh, l'objectif principal de la Jamiatou Ansaroudine est de réunir les disciples de Cheikh Ibrahim Niass pour les organiser et les mettre au service d'un islam de paix et de développement. Euh, le deuxième axe est un axe euh, davantage culturel qui consiste donc à gérer les événements, les gamous, les ziyaras, mais également à s'investir dans euh, l'appui à l'éducation, à la diffusion du savoir, dans l'organisation également du prix Cheikh Ibrahim Niass pour la, pour la paix et de la conférence internationale hein, dont nous préparons la deuxième édition. Euh, euh, L'axe suivant, c'est un axe économique, puisqu'il s'agit de, euh, de capaciter, si j'ose dire, les, les, disciples pour qu'ils puissent davantage se mettre au service de, des idéaux de la Jamiatou Ansaruddin. Euh, l'axe suivant, c'est l'axe infrastructure. Il s'agit là de doter la communauté d'infrastructures qui lui permettent de davantage se mettre au service de l'éducation, de la santé euh, et de, tout, toutes les, de, les activités culturelles. Et enfin, il y a un axe est un axe transversal, c'est l'axe euh, euh, appui, euh, administration, appui aux différentes instances, organisation, c'est ce qui, est, de réunir en bureau de nous de temps en temps en comité directeur. Voilà les grands axes de, du programme triennal et nous, qui ont déjà commencé à être mis en œuvre puisque, euh, comme vous avez vu, 2020, c'est une année particulière. Vous auriez dû nous entendre déjà parler de conférences internationales, de réalisation d'un certain nombre d'infrastructures. Ça n'a pas été possible en raison de la pandémie de la Mais euh, très bientôt, dans les semaines qui viennent, vous verrez euh, la mise en œuvre de ce programme triennal d'action et d'investissement. Le calife a accepté votre allégeance Absolument. Le calife nous a rappelé que bien avant aujourd'hui, il était à nos côtés et je puis le confirmer puisque euh, il y a quelques années, alors que euh, nous étions à une autre station, il, il, était toujours à côté de nous, euh, à nous prodiguer des, des, conseils, des encouragements. il l'a rappelé lui-même dans son intervention. Et c'est donc euh, pour lui, euh, c'était pour lui une évidence euh, qu'il serait à nos côtés pour la réalisation de, de ce programme d'action. On peut avoir une idée sur les innovations de Moulout 2020 à Medinavaï avec le contexte de Covid-19 Une voie autorisée y viendra. le, la Jamiatou Ansaroudine en tant qu'instance devant organiser le Maulid a euh, produit un document de plaidoyer qu'elle a remis au calife, qu'il a étudié, qui a certainement pris une décision et qui vous en fera part le moment venu, peut-être à travers, par la voix de son porte-parole. Au sortir de cette audience, quel est le message fort de Jamiatou Ansaroudine Le message fort est celui de mobilisation autour de, euh, des, euh, du programme d'action déjà, mais également autour de tous les objectifs de la euh, communauté de Cheikh Ibrahim Nias. Et euh, c'est un message fort qui sera relayé, comme d'habitude, par le président national. Et euh, là encore, euh, nous ferons appel à vous de la communication euh, sous toutes ses formes et euh, en relation avec notre commission communication, nous avons des messages forts que nous ferons euh, passer euh, par, vos, par votre canal euh, dans les semaines qui viennent. Poste et nomination au niveau de la Hadra, le nouveau calife a maintenu les mêmes décisions que le devant calife. Le nouveau calife nous a euh, rappelé le principe de continuité qui vaut dans toutes les institutions, euh, euh, dans la plupart des institutions. et ça ne l'empêchera pas de donner sa touche pour améliorer les choses, mais euh, il a rappelé que le principe, c'est la continuité. Merci. Je vous remercie,